يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا واجعل لنا سوات دين فايخت والتكفنا إدامها والبايخت وبيننا وفي مها الأولاد يا مالك الهباد والبلاد وباركا فينا واصل أمرنا يا مصيبا بخير رد درنا di yëkkati ay kàddu teg ko ci ndigal comme ni ñu ko baaxoo xamee rek waaye ci kàddu yooyu itam nekk kàddu yoo xam ne kàddu woote la ci bis bu màgg bu tedd mm, bu am solo bi nga xam ne baaxoo nañu koo amal fii ci gaawoon kër maam Mbaye Dieye te sunu nijaay jii ci suñu wetu ndeyjoor sëñ Mbakke di sunu doomu ndeyit mm, di sunu mag kon baaxoo ko woote di ci ànd ak jullit ñëpp waaye rawat nañu ba dugg Serigne Touba gi euh, kon ci turam lañuy àddoo di woote. Euh, woote bi nag moom sunu ko mënee tënk dañuy wax ni bépp jullit bis bi ñu ngi la ci woo euh, rawat na ñi nga xam ne bii suñu borom dafa dogal ñu aju ci Serigne Touba radiyallahu taala anhu waaye nag mu amaat ci biir euh, lu ci doon ak jagle muy njabootu moom Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak gaawan nee nañ ñi ngi woo mbooleem jàngikati alxuraan yëpp ndax Serigne Touba lépp lu mu doon def alxuraan moo cay jiitu kon woo na jàngikati alxuraan yëpp di wax ne bis bi cër buñ ci amoon rek cër boobu nañu xam ne da koy dolli waaye du ko wàññi mukk du ko cof mukk itam rawat na ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu yàgg ak moom lool te yàgg ànd ak moom bis bi eh, te rafetal àndin wi muy waa Euh, daaray kaamil gii ci daaru salaam niki noonu itam mboolem daaray alxuraan yi nekk diggante daaru salaam ak gaawan gii ak tuuba li ko wër ak fu daara alxuraan nekk te man koo ànd ak moom mi ngi la ci woo bu fekkee am nga ngantul teewit ma ngay sàkku ci yow fa nga nekk nga defal ko fa ay ñaan ci alxuraan jël loolu lépp def ko hadiya Sëriñ Tuuba ak mboolem jullit ñëpp rek su jógee ci ñooñu nag daal di ñëw ci la nga xam ne lu ñoroon Serigne Touba la te mooy xasaidam yi tedd yi nga xam ne comme ni ko sëñ daam ubbee léegi rek qasidati faqat qasaidal kiram wali taquudu abadan xayral maram Serigne Touba nee na sama xasida euh, kawe na mboolem xasida yi nga xam ne xasida yi tedd lañ lu waaye mos wax ca yàlla Euh, lu mu tedd tedd rek nee na li ma wax ko kawe gannaaw waxu sunu borom ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xasida yooyu wala xasaayid yooyu ñu cay yëngu di yëngu ci lëggéeyal sëriñ bi ci seen xam-xam seen xel seen doole seen euh, yitte nee na mi ngi leen ci woo ñoom ñëpp di bëgg ñu ànd ak moom bis bi nu raw nañu ko daan ànd ak moom te am na yaakaar ci ne incha allahu taala noonu lañ koy defe ñooñu nag ma nga ca jiital daairatu xidmatul xadim bu daaru salaam ak daairatu xidmatul xadim bu gaawaan ak daairatu tasawuru sigaar soppe sëriñ xamidu mbakke niki noonu itam daairatu nasrullahi soppe sëriñ cheikh gaynde mbakke niki noonu itam daairatu nuuru daarayni bu daaru salaam ci njiital sëriñ kante mi ngi ci wowit daairatu soxna jaara ci njiital sëriñ Moussa Siis waaye niki eh, noonu itam daairatu soxna Anta Ndiaye Mbàkke ci njiital Baye Bada niki noonu itam daairatu matalabul fawzayni daaru salaam ci njiital Serigne Ndiaga Ndiaye mi ngi ci woo itam daairatu xadaaiqul fadail ci njiital Serigne Diaw niki noonu itam daairatu kuréel général daaru salaam mi ngi ci woo itam daairatu soppay sëriñ Dame Diop nuurul daare ni muy Serigne Dame mi doon jàng léegi Euh, ñu defi lu am njariñ ndax sopp sëñ daam defe naa mooy sopp xasaay di rek ndax ci lañ ko xam niki noonu itam daairatu wa kaana xaqan alayna nasrul muminin bu gaawan euh, ñu am taxawaay bu am solo ci dëkk bi ñoom it rawat na gox bi ñu nekk niki noonu itam daairatu ahlu kafe ci njiital sëriñ Mamour Mbakke moom it bokk ci liggéey bi bu baax a baax a baax ràññee ci loolu macha allah ak ñu ngi ko àndal ñëpp noonu itam daairatu soppay sëriñ Salih nuuru gaawaan euh, ñoom it di ay ndaw góor ak jigéen ñu am pas-pas ñu bëgg lu baax ndeysaan macha allah di am taxawaay am solo fii ci gaawaan yi ñu fiy taxawee. niki noonu itam daairatu nuurul islaam soppee sëriñ Mbàkke Astu niki noonu itam daairatu qodama suddiqin euh, ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp. niki noonu itam daairatu al xarakatu amalu lil quraan al waa kër Serigne Cheikh li Mbacke góor yàlla ga ñoom tamit ñu ngi leen ci woo di leen tàllal loxo ñu ànd ak moom bis bi rawat na ci wàllum alxuraan ndax ñoom yemuñ ci yëngu xasida yi rek wala xasaayid yi waaye alxuraan yaakaar naa ku leen xam-xam ne saf nañ ca sap ti jàng ko ak jàngale ko ak mémoriser ko di mokkal ko ak di ko bind tabaarakallaahu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bi sàlloo nañ ko kon ñu ngi leen ci woo ci xasaayid yi gannaaw alxuraan ak Euh, pas-pas bi nga xam ne bii xamee nañ leen ko macha allah ndiki noonu itam waa mouvement wàllu sunuy gox waaye nag ñu fàttali leen ne bis bi kat bu nee suba la euh, am na guddik maam Cheikh Ibrahima Fall dalee ko ca ngontuma euh, guddik Cheikh Ibrahima nag génn lu dul waxtaane pas-pas waaye yeesal pas-pas waaye tudd yàlla gu saf sàpp waaye nag jël sa ñaq def ci yoonu yàlla te yàlla rek tax fàttali ko doxinu Cheikh Ibra ak doxinu mag ña ngir sunu jamono ñu mën caa roy mën a am solution buñ mën a solutionner suñuy problème ba xëy na lii ñuy jàmbat di wax crise des valeurs yii te ak ñàkkuk taalibe bi di ko jur yàlla ci mbaaxam xëy na mu mën ñu dimbali ba ñu mucc ca incha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatuhu. mbokki jullit di mbokki taalibe yi ñu ngi nuyoo ñëpp leen ziar. di sant suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba alayhi salaatu salaam santane sunu yaakaar yi teeg ëllëg Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul waaye di jaare cant ga ci suñu buntu ca moom nag muy maam Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm eh, amaan mbégte lool jàkkaarloowaat ak yéen saa suñu jubee waxtu wii muy bis bi nga xamante ne nii mooy bisub Daaru Salaam bi nga xam ni at mu jot ci la ñuy woote képp ku aju ci maam Cheikh Anta ngir ñu boole dajale ñaq yi wërsëg yi yët ko ki fi nekkal Serigne Touba ku ne xam na ni bis boobee egsi na mu war nekk le 9 janvier 2021 waaye am mbokk taalibe boo xam nit at mu jot da koy gàttandoo fàttali ko jàmbaar ji nga xamante ne nii lépp ci moom la soxla ko woon. ki nga xam ne dundam yëpp da koo jeexaloon ci liggéeyal yàlla ak jaamu yàlla nekkoon ab murit saadix muy mu Cheikh Mouhamadou Rokhaya Cheikh Mouhamadou Rokhaya moomee nag nga xam ne léppam da koo jeexaloon ci yàlla te ku jëfal yàlla yàlla fay la. kenn ci njabootam kenn di taalibe muy Serigne Mbacke Dieye baaxoo bisub addiya jooju nga xam ne ci la ñuy fàttalikuwaale Serigne Modou Rokhaya saa yu ñoom gàttandoo ko ak cant gàttandoo ko ñaanal Serigne Modou Rokhaya waaye gàttandoo ko fàttaliku jikkoy mu Modou Rokhaya yu sell yooyee ngir ñu man caaro caaroy bis fàttaliku boobu ñu ngi defal Serigne Modou Rokhaya nag moo war a nekk alxamis le 7 janvier 2021 fii ci gaawaan Mbàkke kër Baye bay Dieye bis boobee nag comme ni ngeen déggee Serigne Bassirou Cissé léegi wax woote ci woote bu yaatu foofu rek la ñuy sos suñuy kàddu di ko ñaanal moom suñu borom defal ko tawféex waaye mu koy def nag ndigalul ak njiitul seex Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifab Serigne Modou Rokhaya moom mi nga xam ni lu fi Serigne Modou Rokhaya bàyyi woon benn rek ful na ko kon ci ndigalu Serigne Cheikh Anta la Serigne Mbacke di woote bis bi moo tax ne mi ngi ciy mi ngi koy fàttali ñi Serigne Abo Mbacke ibnu Serigne Modou Mamoun di ko sant ci li weesu lépp nag ndax at mu ngeen ñu gis ndaawam ak njabootam ñëw teew fi di ko fàttali itam Serigne Sidi Mbacke ibnu Serigne Amidoun moom itam at mu jot ak njabootam ñëw teew fi ci ndigalam di ko fàttali Serigne Saliou Mbacke Ibra Ndar mi ngi koy fàttali moom it at mu jot mu ñëw ànd ko ak moom wane ci ak cofeelam bu baax a baax ne di ko fàttali itam Serigne Sidi Mbacke Baye Fall ñu moom Serigne Sam ngi koy fàttali bu baax di ko fàttali itam Serigne waa euh, waa kër Serigne Abdou Diandoum di ki tudd rek sunu mbokk soxna maam Anta Mbacke ak waa këram yëpp di ci woo njabootu Serigne Modou Rokhaya gépp nag ndax ñoom bis bi seen bis la ñoo ko moom kon ku fi ñëw rek ñoom la fi dikkal di eh, di ci woo donc tarbiya yi nga xam ni ñoom la bokkaloon nekk ci kippaaru sëriñ mu Rokhaya di fa sàkku ngërëm seen bokkum dongab tarbiya mooy woote bis bi kon bis bi kenn ëppalew leen ci lépp seen bisa eh, di ci woo njabootu Cheikh safaa Ceytu gépp nag sàmbale ak sëriñ As ma nga xam ne moo ne ci bopp ba waaye sëriñ bu Mbàkke mi nga xam ni moo fi nekk tey ci ci kër gi nekkal fi njabootu sëriñ Moustapha gi yëpp moom itam am yëg-yëg ci bis bi at mu jot mu yónnee fi mi ngi koy fàttali bu baax di ci woo njabootu Serigne Abdou Gora Mbacke yëpp itam di ci woo itam waa kër Serigne Ibrahima Mbacke njiital Serigne Sidi ak mboolem ay rakkam yëpp Serigne Modou Roqee Serigne Abdoul Baqi ak mboolem di Serigne euh, Ibrahima euh, njaboote di ci woo euh, Serigne moori gay ci Daaru Rahman moom itam ku ne xam ne taxawaay bi nga xamante ni Serigne Afia Gaye daana ko am ci bis bi ak njabootam gi yëpp ñu ngi ko ci ñu ngi koy woo Serigne Mori ak njabootu Serigne Afia Gaye Euh, di ci woo monsieur le maire euh, Abdoul Mbacke Ndaw ñu ngi koy fàttali bis bi moom itam at mu gën mu teew ñu ngi koy yëgalaat euh, di ci woo DG Garoba mm, moom itam ñu ngi koy yëgal bu baax a baax di ci woo yëgal Serigne Mor Ndiaye kooku it moom borom bis bi la ndax moom cofeelam ci Serigne Modou yi at mu jot mu feeñal ko Serigne Mor Ndiaye conseil économique social et environnemental ñu ngi ko ci woo bu baax di fàttali bis bi at mu dañ koy tuddee kenn. ci mag ñu baax ñi nga xam ne dañ fee nekkoon seen doxin rafet lool dañ bëgg di ko roy ren nag ñu tànn ci Baye Cheikhou Mbacké Baye Cheikhou Mbacké nag ku xam mag ñi àndoon ak maam Cheikh Anta mbokkam la woon mu ko jege lool ci wàllu deret waaye mbokkam la mu ko jege woon ci pas-pas ndax mag ñi pas-pas lañ doon jàppe nit te Baye Cheikh wax nañ ni pas-pasam bu rëy taxoon na maam Cheikh Anta da koo woon ci léppam ba mën nañ ne moo nekkoon loxoom di joor maam Cheikh Anta kon Baye Cheikhou Mbacké moom i moom la ñu dara tudde bés bi ñu koy yëgal njabootam gépp di sàkk seen teewaay di ñaan xas yi xasida yëpp yàlla jotale ko ci jotale ko ci sëriñ Modou Rokhaya ak mboolem way dawla yi jiitu yëpp euh, ñu dara jaale ko itam euh, sëriñ Modou Rokhaya Bousso mi nga moom sëriñ Fallou Bousso imam ci gaawaan di wëllëreew sëriñ Mbacke Dieye moom la ñu darajaale bis bereen kon bis bi mi ngi noonu euh, ku dégg sa tur ak ku déggul yëpp nga xam ni ñëpp la amoon yéenay tudd leen ni nga xam noonu lay doxee nag Serigne Bassirou wax na ko mooy jàngkati alxuraan yi jàngkati xasiida yi ak bernde ak waxtaane gaa yu baax yi te yaakaar naa ñett yooyu fu ñu koy def fu ne kenn ku ne war na faa dem sàkko ji fa aw yiw bu bis bi nag bu ñu nee suba la muy ci àllarba ji ngontum maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp moo cay am suñu rakk Basirou yi moo koy organiser ren nag mu séddañu ko incha allah rabbi ñu ngi ciy woo ñëpp itam ci àllarba ji e, ginnaaw timis lay tàmbali ba guddi gi sori alxames yi ñu xëy yendu ci alxuraan ak xasida ba ngoon Serigne Cheikh Anta ñëw ñu ànd dem ci biir bâche bi jàng fa xasida waxtaane fa dunduk Serigne Modou Rokhaya Fallou Gala Silla moo ko na animé at mu jot ak ñi mu ko war a ànd ñëpp incha allah ak Serigne Gana Messere Messere aussi moom itam bokk na ci ñu ko war a teewee ci waxtaan woowu incha allah ñu ngi ko ci séentu bu baax a baax di ci fàttaliku itam mboolem way daaw la yëpp nag ñi nga xam ne suñ borom dogal na ñu génn àddina yëpp tàmbale ci jullit ba njëkk ba ba mujj ñi ngi ciy yéene waale ñëpp waaye rawatina ñi nga xam ni waxtu wi daaw fekkoon na leen fi te ren suñ borom dogal ñu jiitu ji ñooñu ñëpp incha allah rabbi fas nañ yéene defal yéene waale leen ci ay dog ñaan yàlla jotali leen ci ñu ngi jégalu ci kàddu yi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu mbokk taalibe yi ñu jàkkaarloog ñun ñëpp rek fu waaye mën a nekk di la jox sa wàccuwaay di la fekk fa nga ne di la nuyu bu baax di la ziar di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa sunu sëriñ sunu wasila sëriñ seexanta Anta mu yàgg fi te mel ni dañoo jot ndigal ci moom comme bis bi niñ ko baaxoo di amal rek sunu jëwriñ yi jiitu yëpp tudd nañu ko moom lañ leen di fàttali rek niñ ko baaxee di defee incha allah di ko waajale addiyee daaru salaam yi ku ko gis rek xam ni bis sëñ mu droxee mi ngi ñëw moom rek lañ ci jublu mel ni rek daanañ ci am mbégte lool waaye ren la ëppee ndax def di def mbir ba sa kilifa ga nga koy defal nga avant ngay dem di laaji ndigal mu woo jox la ci ndigal ndax mbiri jamono yi ni mu demee ak xew-xew yi mu jox la ndigal ne la def ko na ko daan defee kon loolu ndigal la te ndigal moom caabi la noonu lañ ci amee ndigal moo tax ñu yéene ci yiw ñu boole mbokk yi ñu ko daan àndal yëpp ni nag dañ daan defal suñ bopp waaye ren dañ ci am ndigal kon ñu taxasuwaay rek fas yéene mel ni kuy doog a tàmbali rek ñaan mbokk taalibe yëpp ni ñu ko daan àndal ñëpp rek amut xàjj amut seen ñu ngi ci woo ñëpp di ci bàyyi xel ñëpp di ko ànd ak ñëpp ndax bis bi dañ ma ciy tudd rek waaye maa ngi a ko bokk baa ma gën ci tuuti tuutile comme ni ko sëñ daaw du waxee rek ñu ci ñaanal mbokk way daw li nga xam ne at mu jot dañ kara ànd ak ñoom ndax de du boo gisee ñu ci rendre hommage ñooñu du du ko faatu ci at mi rek ñu rendre hommage la ci da di kun ci tudd rek rendre la hommage daa am noo xam ne noo ci daan doxe la ak luñ séqoon ak yow ba moo waral ndax doomu aadama bu fi bàyyi ko li nga mënal ci moom mooy ñaanal ko rek comme bis bi bisu ñaan la rek moo tax bu ñëwatee rek ñu ciy xalaat ñooñu nga xam ne nii bàyyi woon nañ ko xel lool wala seeni doom bàyyi ko xel ñu seq kook ñoom di leen ci ñaanalaale mu mel ni sëñ Mamor Gaawaan moom tam ni nga ko ci ñaanalaale sëñ Maamunum sëñ Ibra Ndar nga xam ni moom nii la ci daan ñëwee ba daaw rek sëñ Ibra Ndar lañ ko tudde woon ñu ngi ko ci bàyyi xel di ko ci ñaanal soxna Astu Mbàkke moom sëñ Mudu Maamu mu ngi ko ci ñaanalaale sëriñ Afia Gaye Daar Rahman nga xam ne nii wax dëgg yàlla bis bi jëfam moo ci daan jiitu at mu jot ak ñaanam moom itam ñu ngi ko ci ñaanal di ko ci fàttaliku bu baax di ko yéene ci kaamil yi soxna Astu Jóob moom itam ñu ngi ko ci ñaanal bu baax soxna ramaloo ajaratu ramaloo di waajuru suñ daaw da jéemi nga xam ni bis bi ku ko safoo la woon saayu yu jegee day ñëw ci man di ci waxtaan ak man di ci ñaanal di ci encouragé mu ngi ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal suñu boroom yokk ay leeram fa mu nekk bàyyi daam ñang moom itam moom itam di waajur ci gone yi jàng métier ci man mu ngi ko ciy ñaanalaale alaaji góor ngoom xel kom baas nga xam ni ku dégg tur wi dana xaw a kii ci yow waaye dañoo seq ak moom ak kóllëre ak liggéey bu nu seq ak moom ay teraanga moo waral maanaam mu bàyyi koo fi moom itam ñu ko ci fàttali ko di ko ci ñaanalaale soxna astu soxna kinne jóob moom itam no kasaalika noonu noonu lañ ko ci ñaanalaale ñoo ñëpp rek dañ leen yéenewaale ci kaamil yi ndax ñun bis bi kaamil yi rek lañ ci gën a ittewoo saa yu jubsee rek dañuy dem ci jàngat arxuraan yi faafoon teeg ñoom ñu tàmbali lañuy ñuy commencé di jàng ci arxuraan ak xasida bu bis baa ñëw tëje ko fii yéene ci yool bi sëñ Mudu Rokhaya ak kan ko tudde ak way daw lii sëñ waa kër Baye Seexu ba ma leen ko waxee lañ ni woon dañ commencé kaamil yi fi mu toll nii boobu ba léegi ñu ngi ci wàcc ay kaamil kon loolu ñu ngi ci ñëpp rek xaj nañ ci waaw foo xam ne it mënuma fay àgg ñi ma fay àggal itam ñooñu itam wax dëgg yàlla dañu mission la bu may jàppalee muy lettre yi nga xam ne maa ngi koy joxe leetar yi nag moom bëgg nga yëg xam ni ak yëg la moo tax ñu jox la ko waaye du bëgg loo cee def di ñu ko jox boo gisee ñu ci nango di sonn lool la rek li ñuy wax naan ku am na nga ñëw ku amul ñëwal moom loolu la ñuy wax rek boo ñaanee sax baax na ku ci mel ni soxna may si la moom tam noonu lañu ci jàppale soxna sooda njaay moom itam noonu foofu da ciy sonn lool soxna may si la moom itam ñépp rek at mu jot noonu lañ may laaj ay leetar foo xam ne mënuma faa àgg ñu àgg fa kon ñooñu il ñu sant leen gërëm leen ba ci soxna Ami juuf ak soxna juuf ñoom ñëpp rek kon daal wax ji moom mën na sëkk ñi jiitu wax nañ lépp suñ kilifa yi nga xam ne moom lañ toogal mu bàyyi nduur mi nga xam ne lu ñu xam ci métier mi moom moo ñu ko xamal sëñ Maamun Jeey sunu xalifa bii toog ñoom ñëpp sëñ Daam Jóob bàyyi koo fu ne bàyyi Basiiru Gay ba ci sëñ Daawda ak sëñ Bas mi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant ak jiili ñang ak ñim àndal di sant suñ Fallou Galass la mi fi yebal kamaramaan bi itam ñu ngi koy sant bu baax moom bis bi mooy seq waxtaan yi mook Gana Messere incha allah ñu ngi sàkku mbokk taalibe yëpp teew ci bu soobee yàlla mu ngi jéggalu bu baax jërëjëf. xam nañ ne lii ku ci def sa dara da yokk waaye du dootoo wàññi ko sëriñ Mbacke Dieye bisam boobu muy woote ñëpp xam ne bis boobu moom itam. moom lañuy ñuy liggéey bi euh, ku ca mën a dem rek nga dem ca teew ca te loo def nga ne liggéey rek ko tax a jóg wasalaamaaleykum taala wa barakaatuhu يا من أجاب من استجاب بإجابة في سنداي آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke borom Tuuba